asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu maa ngi ñëw di waxtaan tey yokk ci waxtaan bi ñu waxtaanoon def ko jaamu yàlla ngir mu dimbale doomi aadama moo xam ci diine bi mu mën a nekk ak ci réew mu mën a nekk ndax fu mu munti nekk yàlla mu ngi fa ak moom te yàlla moo ñi mooy dogal ci jaam ñi yàlla moomu moom jaam ñi am na ñum jox àq ci kaw ñenn ku ci mel ni waajur bi am na raay tuddee doomam lu ko neex te yàlla moo moom bi ku ci mel ni waajur bi am na raay def doomam mu gëm li ko neex te yàlla moo moom jaam bi ku ci mel ni jëkkër bi am na doole ci kaw jabar ji di ko digal lu bari te yàlla moo moom jaam bi ku ci mel ni njiiti réew mi mun naa dogal ci réew mi lu bari te yàlla moo moom jaam ñi kon su yàlla moomu moomee jaam ñi te jox jaam ñi raayit ci kaw ñeneen ñi dafay baax nag ñu faram fàcce yeneen lu ci bari ngir ñu mun a defar dundin bi may ñëw nag di wax ci mystical life bi nga xam ne mu ngi am di wax ne na nit ñi di bàyyi xel suñoo seetlu mu ci mel ni nga dem ci sëriñ la ko seetal ma bari na tur soo demee Portugal ñu ngi koy ooye Makumba den la naan dina la yóbbu ci Makumba sëriñ leen koy ooye nga dem senegal am na tur nga dem Caracas am na tur nga dem Solomon Island am na tur nga dem Cape Verde am na tur waaye ñi may waxal olof leen wala ñu dégg olof ma ne jigéen ak góor buy dem di seetlu danga war a bàyyi sa xel lan nga war a bàyyi sa xel mooy ki ngay seetlu fekkloo benn certificat bu ko nguur gi ak réew mi jox ne moom mun na li mooy def gisuloo benn màndarga bu la wan ne mun na li mooy def benn danga ko óolu wala nita la ko wax wala danga jaaxle nit su jaaxlee xelam mi dafay wàññeeku parce que xel dafa am siddiit yu koy jox mu fonction soo tiitee du fonction soo jaaxlee du fonction soo kontaanee ba ëpp du fonction soo meree du fonction foog nga dal nga teey mu mën a fonction moo tax nit ku gëna a ci nit ñi mooy ku ëpp dal mooy ku gën a teey dem nga ci sëriñ bi nga ne dangay seetlu danga dem xamuloo nga bëgg mu xamal la loo xamut danga nga dem pour xam nga bëgg mu leeralal la danga dem pour jaaxle danga bëgg mu gindi la nanga bàyyi sa xel moom suy wax ak yow ndax am na sëy yu bari lu am na liggéey yu bari yu seet yàq am na ay ambition yu nit am ngir réewam ak boppam seet yàq ko kon lan la nit ki war a def bu fekkee ki ngay seetloo da nga ko xam ne am na xam-xam lu mu la wax dëgg la loolu awma ci xalaat ndax nit ki lu mu seede dëgg la ci moom moo tax benn doomu aadama dina taxaw kii ne caga kii ne dafa baax bu kenn weddi sa morom kii ne cagala la xam ci moom ku ne dafa baax baax la xam ci moom kon mbir yi foog ñu koy faram fàcce di ko teg ci palaas bi mu dëkk ngir ñu moytandeku réeroo ngir ñu moytandeku ñàkk déggante boo demee ci sëriñ mu moytu loola sa moromi doomi aadama tam tegtal ak màndarga yim la jox leerut moytu ko moom ndax waa météo suñ taxawee na la dafay taw den la naan taw bi nangam lay am bis nangam lay taw waxtu sàngam doo gëm ne dina taw waaye doo ko weddi waaye di nga jënd palansoor di nga tëjale sa buntu nga waaj ngir yàgg neen la wax lu am nit ku lay nettali jëw mënut laa wax kan la fenkat la ndax su dee dafa dëgg waroon na koo xuloo xuloowul ko su lay wax na la wax lu leer loolu mooy seen seetkat bi nga xam ne mu ngi lay réeral ci say biiri mbokk waaye nekk ak jëkkër seetkat na la sa sëy bi baaxut nangam nangam nangam nga gëm ko ba tas sa sëy def nga lu ñaaw waaye moom mooy jiiti bàkkaar bi dafa mel ni ku naan sàngara saaga njaaloo bu du toon sàngara doo ko def waaye bu du toon sëriñ bi doo ko def yéen ñaan ñépp yéen a am àtte kon ma bëgg duma ci yaatal duma ci gaawal ndax yàgg naa cee wax wax waxati du bari wax waaye bëgg leeral la su doon bari wax la kon dañuy nodd benn yoon waaye juróomi waxtu yi bu ne dineen ko noddal ñetti yoon ngir den bëgg nit ñi xam lan mooy njëriñi julli den bëgg nit ñi xam lan mooy njëriñi nit ñi dajaloo di julli moo tax may wax di waxaat ngir doomaadama yi may waxal dama bëgguñu ñu jëriñu te di wax dara kii dégg ko nga wax dara fekk keneen dégg ko woon moo tax alquran dafay baamtu baat yu bari ngir soo tollee ci saar bu njëkk bi nga jàng àgguloo ci bu mujj bi nga mën a xam ne lalee mu ngi fii waaye boo jàngee alquran ba mu jeex baqara ba naasi dangay mun a comprendre ne yàlla dina wax fii expliquer la lu bari lu yàgg mu delloowaat la lu mu la expliquer ngir yaa ngi xel moo xam ne dafay fàtte. ma ñëw tey di wax ci jàpp góor liggéey ko ba du doon góor benn ki ngeen doon doxaan yéen ñaar daf la ci jiitu ñaar jabaram danga ko bëgg a jëfandikoo ñetteel danga am lu la naqari ci moom ñeenteel ba jigéen yaa ko def ngir bëgguloo sa mu sa wujj mu fonction mu tëdd ak moom ngir danga fiir maa lay wan ne yéen ñépp ay agent ngeen yuy liggéeyal seytaane mooy you are all agent working for seytaan góor soo ko waree liggéey pour du nekk góor dafa am siddiit buy fonction si moom waxtu bu ne dafay tàng su seddee rek koddal bi dafay wàcc dootul munati kuddal waaye fekk mu ngi tàng day kuddal ku la gën a tàng la siddiit boobu nag moo la dàq kuddal kon liggéey pour nga jàpp ngóor a nit siddiit boobu lay seddal mu ngi mel ni soj ci sa bullux gi bullux mooy prux mooy throat in English dafa mel ni bul daf dee toon diggante bi dafa sedd soj fa lay dem taxaw mu sedd foofu di am ndox di ko wàll bakkan bi ngay ñandu léegi nag lu tàng walla lu weex moo koy faj da koy wàcce ba ci biir bi su wàccee ci biir bi mu tàng mu rey ko nga saw ko walla nga dem ko kama ci duus bi waaye boo liggéeyee góor nag sidditam boobu mooy sedd du mën a yëngu su siddit bi seddee juróom benni weer dootul mën a tàngaat wala dootul tàng lu yàgg te góor ñu ne ñeent la am kàddoom décision am cëram ak tubéyam waaye li koy may loolu yépp mooy tubéyam dañuy foye sax biñ nekkee xale ne góor goo gis jabaram respecté ko rek c'est parce que daf ko mën ci kaw lal bi waaye biñ màggee xam ne ne du loolu jigéen pour mu respect la yow yaay njëkk a respect sa bopp jigéen pour mu fonk la yow yaay fonk sa bopp jigéen pour mu jox la cër danga koy jox gëddëm jigéen pour mu teg la sa place danga koy bëgg danga koy suturaal danga koy yërëm su boobaa mu delloo la loolu waaye du kaw lal rek ndax sëy su doon kaw lal rek kon néeg du am leneen lu dul lal kon duñ la digal muñ dañ lay digal kaw lal rek sëy ëpp na loolu liggéey góor pour bu mu doon góor danga koy def ci banaana ndax soo leen seetloo banaana daraam dëgërut ci reeni banaana ba ci xob ba ba ci banqaas bi ba su meññee ba lépp daraam dëgërut fa ngay xooñ ci def am noo ko defee góor ga siddiit bi dootul yëngu su forcé ba yëngu sax diggante bi nga ko bàyyee moo xam danga ko doon màcc balaa muy dugg day wàcc am na bu pël yi di def wala ci xeeti xam-xami pël ak manding muy soose joolaa xeet boobu yépp manding leen ndax den tasaaroo nga defar ko ci béjjén soo ko dugalee fu sedd mu sedd guy soo ko dugalee fu tàng mu tàng loolu si wujj yi ñoo koy defante saay jigéen yu saay-saay yi su ñëwee ci yow nga dugal ci ànd bi ñu mel ni dañuy cuuraay fekk dugalal neen la béjjén bi ànd baa ngay tàng yaa ngi tàng boo demee ci a ci ña ci wujj bi ñu génnee ko dugal ko ci firig bi yokk ko dineen jënd cash power dineen jënd woyofal ngir courant bu mu dem juste rek pour bul fonctionner loolu su amee saay-saay la bu doon feebar du dangay dem ci diw mu baax nga ñëw ci diw du bon loolu du feebar pexe la am na beneen boo xam ne wirda la boobu sooy taxawal day mel ni luy métti boobu rawxaan leen la booleel boo taxawee mu xacc day mel ni yow miy dugal jiya ak a delloo ñiy dawal oto xam neen loolu waaye lii yépp nag soo ko boolee nga xool ndax wujjee jar na nga liggéey sa jëkkër bi nga xam ne yàlla daf la ne fonk ko déglu ko jigéen yàlla la am daf koy gëm yonantu la am daf koy topp waaye juram la am balaa yaayam balaa baayam keroog bi ñu la mayee la islaam dagg raay bi ndey ak bàyyi amoon ci yow jox ko jëkkër kon ndax yow rafet na nga jël sa baay liggéey ko ba kooyam du taxaw déedéet rafetul lu ko jar wujjee bul foog ne danga nga fiir de seytaane nga jox sa bopp mu ngi mel ni jigéen yi nga xam ne dañuy defar seen niil si ba mel ni dëmm yuñ puudar wala ba mel ni dëmm yu amul kuñ lekk taxaw foog ne den expensive di njaaloo di def lu bon di fen di nekk ci lu xaraam ba biir dem génnee ko foog ne yow yu are you you you you have the right to jàpp na jigéen ju baax nga déedéet danga may doole seytaane mu jëfandikoo la pour yàq doom ju waroon a juddu kon jigéen buy def loolu mbaa lay ragalloo yàlla di la ko bàyyiloo te xam ne du fiir seytaane ngay liggéeyal waaye góor gi nga xam ne danga doon xàccoog jigéen góor ba yàlla wërsëgal ko ko amuloo dara looy def dëddale nga munta dem def nga lu nekk nga dem takk ko korta takk ko xala pour bu mu taxawal nga jël jabaram maa ngi lay moytandeku loo ne yàlla mi la may doole wala seytaane mi nga liggéeyal ba mel ni ku la may doole nga def loolu yàlla moomu ku mën a àtte la te bis dina ñëw mu àtte moo tax gis naa fi benn kilifa gaañu na yàlla na yàlla yërëm ko bi ma demee Casamance di jàng dëkk bi ñuy wax Carrefour yónni na fa taalibe mu jël sëriñ bi sëriñ bi ne man lay àndal ñu dem ba ci dëkk ba mu ne mu jox ko ñeent fukki million CFA na ko dama bëgg nga ñaanal ma ma taxawal ndaw si xeex naa fukki at ak juróom benn jot ko waaye duma góor ndekete sëriñ bi fu ndaw si sëy dina korta jëkkër yi dina leen naawtal dina leen def lu nekk pour ñu dee ñu jot ci ndaw si mu dem ba jot ko yàlla téye sidditam bi su ma sëriñ boobu noonu dugg xalwa ci dëkk bi man maa doon joxe lekk am neen fa juróom fukki fan ñeent fukki fan ak benn forty one days 41 jours dugg xalwa su ma sëriñ gént euh, yenentu yàlla saalix la gént mu bindal ko na ko kii ngay ñaanal pour mu nekk góor bu demee aljana sa du nekk góor mu wax ko ko noonu la nekk di xoolanteeg ndaw si ba mu jigéen ndaw si daf daan tëdd ak ay taalibeem ci biir kër gi mu koy xam te du ko mën du ci mën dara ba ay doomam xam neen ko kooku tey du kilifa guñ réeree ci Sénégal waa su fekkee yàlla mu mun a àtte mi mooy àtte ba su njiiti diine yiñ yaakaar nga xam ne they have everything su leen neexee ekkati téléphone woo président su leen neexee rey nit dara du ci mën dara am neen xam-xam am neen juddu bu rafet su dee ñoom la yàlla di àtte ba téye seen bagage yi mënuñoo jëfandikoo jigéen bu ñu xeex fukki at ak juróom-ñett naka yow lu ko jar wallaahi dara jaru ko kon liggéey góor du doon góor su dee góor moo ko def dina ko dal te dina jàkkaarloo conséquences yi bu dee jigéen moo koy def maa ngi lay moytandikuloo yàlla jóge ko foofu dëddale ñaari nit ñu bëggante loolu dafay yàq société imaginel tey ñaari nit ñu nekk ci néeg ku ci nekk am na seytaane bu nekk ci yow nga dem dëddale leen ñu merante ñu nekk ci néeg bi di xuloo paaka yaa ngi fa lancet yaa fa palaat yaa ngi fa everything ñu ngi tëj bunta bi yow yaa ngi leen def seytaane mu ngi taal seen diggante seyta dëddale ay doomi seytaane yu ndaw la dafay nekk ci noppi nit ki nekk ci diggante xelam ak xolam ba pare nekk ci biir deretam di ko tàngal gis nga suñu la dëddalee sooy wax ak ki nga bëgg sa sidditi baat yi dañ dee taxaw sa bëti xonq cur nga mer fa no résine suñ la laajee lan la dang naan dara ñu xuloo ba reyante rey na nit de waaye yow mi ko def lu mu bañee nit ki ba rey ko yow génnuloo ci gis nga xeex bi gën a neex te gën a gaaw mooy dara xew nga gestu ne yow yàlla lii yow rek yaa ci mun dara bàyyee naa la yépp mu metti nag nga tëdd di jooy ba sa ngegenaay tooy nga puus ko jëlaat beneen ngegenaay jooy ba munatuloo nga bàyyee yàlla mbir yi <laughs> xeex boobu mooy li gën a benn jigéen daf ma jot na ma Cheikh Ahmed ma ne ko waaw mu ne ma maa lay gërëm yàgg naa déglu ay ustaas ñuy waxtaan waaye toog ci internet bi wax ak joomi aadama yi ne yow de jaaroon nga lii lu bon la bàyyi nga ko tuubal nga yàlla na nit ñi tuub mu ne ma ci yow laa ko gisee dinaa la waxal dara ma ne ko lan la mu ne dafa benn sëriñ bu ma gisoon ci internet muy waxtaan ma yaakaar ko ma dem ci moom pour uti ndimbal bi ma demee ci moom lépp lu ma jox ne sangul naanal ndeke pour boppam la mu liggéey ma ba ma nopp ko mu ma seenloo ay vidéo ma di ko ko seen ay nataal ma di ko ko seen mu tasloo ma suma sëy ma tas suma sëy bala ma tas sax commencé na di ma jëfandikoo saa yu ma woowee Afrika dinaa dem ba time bu mu ko buggee la ma bàyyi ma dem ma am suma doom juróom-ñeenti weer mu ne ma feral ko ma feral ko lu mu ma wax ma def sëriñ bi di ma jëfandikoo nu mu ko neexee ma toog ba benn time ma am suma bopp which means she came back to her senses ma ne ko may ma suma baat mu yónnee ma vidéo yi ma soo yëngatoo dina ko jox suma yenn taalibe ñu post ko ci internet bi mu ne ma njàqare boobu daf ma topp ba dama feebar lan laa war a def ma ne ko lan nga war a def mu ne waa ma ne ko jàkkaarlool ak yàlla jullil sa ñaari rakk yu sell ma ne ko ndax am nga benn mbubba boo xam ne óor na la ne lii li nga ko jëndee du lu bon mu ne ma may ma ma xoolaat ko jànq bi xool mbubbam yépp tout dees mu delsiwaat ci man na ma seet naa am naa mbubba yoo xam ne den ma ko may am na yoo xam ne jënd naa ko daf ma lew ma ne ko jëlal yiñ la may nga tuubal yàlla jàkkaarloog moom dénk yàlla sa bopp na ko yow yàlla yaa ñu moom mën ak diw yàlla àtteel suñ diggante te bum gaaw te bum yàgg yàlla jox ko déggaam jox ma suma dégga ma ne ko su dee danga demoon ñaani ndimbal ci moom yaakaar ko ngir boroom xam-xam la mu liggéey la takka la benn di la yónnee loo foto taati neen amoo sa xel nga di ko yónnee sa taat yi ak vidéo nataal mu takkal la ci kaw sëy te yow xamoo lislaam moo ko xam ma ne ko waxal yàlla jox la dégga sa dégga jox ko déggaam mu def loolu ñaari fan li ma wax du lépp lu pende man xawma waxantu dama gis benn status from bachelor bu bon laas mu ne everybody has a chapter in his life boo xam ne they will not read it loud I exclude myself in that I don't have a chapter which I cannot read loud. mu ne ko yow dama la doon foyee yow nga def ko dëgg jigéen bi na ko lan mu ne ko li ma la doon wax ne sa vidéo yi wallaahi damay fo bàyyi li ngay def jigéen bi na ko mu ne ko diw jarul nëbbu Kocc Barma moo ma woo dafa am suma vidéo ne den ko ko jox dinaa supprimer sa vidéo yi nga supprimer sumay vidéo jigéen bi wax ma ko ma ne ko yu mos placement doomi xaraam sooy jëflanteeg moom faaw nga ab ba yëree doomi xaraam jëflanteeg moom wala nga nekk malayka dara du la saf nga muñ te doomi adama yëpp munuñ ko ma ne ko wax ko ne ko moom na la defaral voice wax lim la def yëpp ne teyuloo ko nga téye voice bi ci nga ko door a baalal góor gi def ko yónnee ko voice yi 8 minutes mu ci man ma ne ko léegi nag xamal ko ne ko yow danga nga wéeru ci yàlla pour yàlla àtte leen waaye yow liggéeyuloo ko xamuloo ko ci baram góor gi wax ko ko ndaw si wax ko ko góor gi gëmu ko ba mu yàgg mu gëm ko ndekete moom daf ko doon def ñeneen ñoo ñu setal ko plan xam nga xale yu jigéen yi léegi ñu ngi vidéo call yoo xam ne boo ko defee bañ screen record la <laughs> you are ndekete yàgg neen koo screen record mu jàpp tuure kundaa mi rek di xaj di yëngal di yëngal di yëngal ba ndox mi di génn ñu yàgg koo jàpp ci loolu ba dajale vidéo yi war koo jox ko ci barma kon sëriñ boobule amoon xam-xam nekk ci internet bi di mbelelele telelele mbelelele telelele ba mel ni he is the most pious person you could ever meet in your life mu ngi doon seduce people mu ngi doon seduce innocent people it come back to haunt him léegi mu ngay ñaan di saraxe di baalo pour buñ publish taatam moom waa nan nga mun a publisher taati jàmbur te bëgguloo ñu publish sa taat léegi waxatul internet bay leen xel rek ban sëriñ ngeen daan gis mu daan wax ci internet bi te waxul he remain muted mu ngi modd mue yëngatootul waxul moo tax def lu bon ci nit ñi dëkk ci sax ci tuubalu loo ko yàlla am lu baax amut waaye ngay jéem lu baax di def def lu lu baax di def lu baax ba pare am lu bon amut sëriñ Fàllu Mbàkke taalibe bi dafa ñëw mu ne ko sëriñ bi yaa ñuy waare ne def lu bon def lu baax amut diw mu ngi tëddee jabari jàmbur mu ngi tëj nit ñi kaso lu ko neex mu def te mu ngi gën a am alal sëñ Fàllu na ko noonu la soo defee lu bon def lu bon ba yàlla xam ne da nga def lu bon mu bugg laa toroxal daf la dee bàyyi ngay éeg mu ne jël la daanu bala moo métti rek nga sori xam nga ku daanoo four story building utee naa ku daanoo hundred story building ku daanu étage premier étage ak centième étage du benn kon yàlla daf lay bàyyi ngay yéeg nga nekk ministre nekk directeur nekk influencer nekk public figure ngay gën a dem di gën a dem ba yàlla ñëw na la ah noonu la yàlla di defee mbiram Gambie fii am na benn so-called activiste mu ngi ci social network bi ne dafa jàppale jigéen moom dafaa jàppale eh, àq ak yelleef lu ne mu binda saa su nekk mu wax foog naa ne liggéeyam mooy Facebook waaye neen leen toog few months time ñu xam ban façon ngi torox tànne la doon toroxal ay jabaram waxuma jigéen ay jabaram jigéen ñu ndaw ñi nekk fii ne den influence because they have the backing of xyz ne leen toog a small time yàggatul ñu xam ne ndekete ñoom ci lu bon lii leen nekkoon journalist yi ñoo utilize ñuy publish lu baaxul ci doomi aadama neen leen leen toog xool leen in few days time in few weeks time in few years time to come what will happen to them gis neen fi jigéen bu taxaw ci public di saaga nit di saaga juddoom di saaga askanam di ko sosal ko waxal lu bon ay jullit di ko tàccu ne lu baax la nañ leen toog in few weeks time to come in few months time to come in few years time to come what will happen to that same person kamaatu diinu tu daanu li nga def rek leen laa def li nga ji ngay góob wax yooyu munta nekk dëgg ba pare nit ñëw nekk ci loolu we didn't expect anything bad from that person unless nga tuubal yàlla ku tuub yàlla baal la waaye ku xaste ci mbooloo danga dem ci mbooloo jéggalu you cannot on your Facebook do live insult someone and you close your Facebook and repent no it work that way because yaa jàngal nit yi loolu danga delluwaat ci public bi xaste eh, eh, jéggalu kon liggéey góor du doon góor bàkkaar gënul koo bon iñaan gënul ko doon dëgg liggéeyal seytaane munta gëne piyoo loolu noonu déddale ñaari nit ñu buggante te mbogeel dafa metti ku bugg a sacrifice nga sa time sa emotions sa disan disan dat nga bàyyi nga bàyyi fàtte loolu yépp liggéey leen déddale leen di di the dreams they have together you kill those dreams the efforts they put up together to reach this stage you end the journey for nothing maa ngi lay seedaloo ci yàlla ne ku dëddale ñaar ñu bëggante yàlla daf lay bañ because yonentu daf ne bu leen yóbbu seen mbokk safara te mu ngee dunda ñu ne ko yaa rasulullahi nan la doomi aadama mun a jëlee mbokkam yóbbu mbokkam safara mu ne nga xañ nit ku mu bëgga ñaar ñu bëggante nga xañ leen nga xañ nit ku mu bëgga yóbbu ko ko safara because yow wipe away all the beautiful smiles in her face dugal nga ko ci jaaxle waaye nag bul dugal nit safara mooy forcer nit kum bugut kon ñu bàyyi xel ci loolu ragal yàlla ci loolu lu am solo la yàlla wax na ci alquran lu bari inna allaha bu kan ñu gëm ñu baax ñuy wax lu baax ñuy def lu baax soo gisee dëgg am doole mooy dëgg yàlla dafa àndaa moom kay leen ma yee leen ci xam-xam lépp def ci xam-xam ba am ci dara dafa am loo ko jëndee fa loolu mooy la mun ngaa liggéey jigéen def ci moom lu nekk ba takk ko du mujje mun ngaa liggéey ni be wàcce ko position am toog fa doo fa mujjee mun ngaa liggéey nit ba tas sëyam mu mer waaye doo kontaan lu yàgg de xam-xam loo ci def lu dul dëgg rek dinga ko fay lu ko ëpp bala ngeen a xam def lu bon ci xam-xam nu garawee ngeen buddi fuuli kuréen bu am kuréen ngeen yéey ko maa ngi post e vidéo bu xale bu góor di dóor meer suma xarit Sandigi Njaay bu baax message na ma na ma génneel lii xale bu réew bu yabaate MSG Hazard message na ma ne génneel lii li ma bëgg a wane mooy ne nga tiim doomi aadama yàq deram ci public bi waxal ko lu mu deful nga jël doomi aadama yóbbu ci sëriñ di ko liggéey moo gën a ñaaw ki ngeen seetaan muy dóor meer bi parce que kooku yar la jël di dóor meer bi su ko damut gaañu ko maire bi bi mu dawee dugga jeex na waaye nga jël nit ki defamation of character jël ko rek pentur ko wit oo li yàlla def ci moom nga ne fenkat la nga ne wérut xam nga seytaane yi suñ la bëggee jaxaseeg nit ñi dañu ne danga am saay ko yàlla mu ngi koy wax ci alquran wa ma saahibukum bi majnunin yonantu den ko daan accuse dof yàq deri nit moo gën a bon xale bu ndaw bu góor bu jël yar di ko dóor meer su sa xol bi nanguwut te seetaan loolu bugguloo ko gis waruloo nangu fu ñoo yàqee deri nit nit laa wax waxuma jullit waxuma tijaan waxuma chrétien nit laa wax doomi aadama wala xad karab naa bani aadama lu tax yàlla waxul jullit ñi wala chrétien yi wala juus kon ñu ragal yàlla mënuñoo ragal yàlla neen bugg suñ bopp ku bugg sa bopp loo buggalul sa bopp bu ko def doomi aadama ñu wàññi liggéeyante bi te jublu yàlla maa ngi lay bàyyiloo xel julli jot doo julli wax lu baax jot doo ko wax def lu rafet jot doo ko def yaa ngi sos yaa ngi naafeq yaa ngi sori yàlla yaa ngi njaaloo ba mu óor la ne ñemewuloo ñaan yàlla nga làqatu jël sa ten thousand jox ko sëriñ ne mu ñaanal la wallahi sëriñ bi daf la gën a say ndey sa dara du faju te sëriñ bi nga yaakaar di very moment nga ne ko ñaanal ma rek wan nga ko ne doo yàlla parce que su doon yàlla danga ko naan may ma kenn dofut jël xaalis ne sëriñ may ma moo tax de reform di wood xam nga nu ñu la dee defaral ma mooy yaa ko mën a def duñu la dee ñaanal ma seytaane dafa intelligent even di words you use daf ko dee defar léegi dangaa gis suñu sëriñ dama bëgg nga defaral ma nàngam kañ lay baax kañ la sëriñ mun a def bu njëkk dama bëgg nga ñaanal léegi xam ne ne ñemewuñu wax ñaanal ma parce que seen diggante ak yàlla baaw dana defaral ma nàngam mun ngeen a naxante ci àdduna ba nekk ku baax waaye naxante ci yàlla ba doon xarit yàlla te jéggaluwuloo ko jaamuwuloo ko amul ndax inna allaha alimun bi zaati sudur yàlla ko xam lépp la moo tax dara umpul ko waa lan moo metti ci nga nekk Europe gu métti googu ci sedd bi di liggéey awas di létt ay boppa di def naa ni di def lu nekk jël sa doola si sa pound si sa corona yi di ko yónnee sëriñ te mënuloo lal sa sijaada bi yaa ngiy liggéey ay awas mënuloo jàkkarloo yàlla ñaan ko seytaane su jëlee ci seytaane la dee def the hours you use to pray God jëluloo ko nga dem def ko ci nonsense seytaane dafaa jël alal boobu jox ko sëriñi fenkat bu mel ni Cheikh Ahmed Cissé nga xam ne làmmiñ bu rëy rek la am ak wax ju bari xamul dara bi nit ñi di jàngi jàngut bi nit ñi di baax baaxut bi nit ñi di yiw yiwut ci internet bi la toog rek su waxee ba yaramam tàng mu fayaat ëllëg mu ñëwaat waxaat man ngaa yónnee sa xaalis ma lekk ko parce que maa la gën a say ndey take me to see others fi maa mujjee suma kàddu it will be personal yéen ñi nga xam ne ñu ngi leen di yónni ci man ngeen may aat ci wat messenger bi di jël suma nombaaka def na ngeen xam ne am nañu yàlla xamal lu gudd te ki lay yónni pour nga pexe ci man su ñeme woon wala mu am fayda dafa ñëw defal ko boppam don't sacrifice your life for someone's pleasure loolu nag euh, lu ma xam la di ko wax <laughs> ñim konsaan dineen xam maa ngi leen di gërëm di wax ne jarut lijjanti suma nomba jarut laaj may kan jarut jokk just take the advice and concentrate to God if you find these words very blessing and useful ñaanal ma yàlla ma jub ñaanal ma yàlla mais ma sutura ñaanal ma yàlla ma gën a bëgg a Cheikh Omar radiallahu anhu ku def lu baax yàlla fay la lu baax jubluwuma ci wax ji privilège waaye dama ci jublu doomi aadama yi ceeñ ngir xam naa ne bokk naa ci ñi nga xam ne buy téeméeri nit sax ñu ngi maa déglu te ñaari dina leen jëriñ maa ngi gërëm képp ku ma bëgg te yàlla tax di ndokkeel ki ma bañ te yàlla tax ndax ñoom ñëpp den ma bëgg ngir yàlla wala den ma bañ ngir yàlla yàlla moom rek mooy li am important. neen di baril astaghfirullah 1947 nendi jang yalati 4444 wala yalati 129 nendi def hasbunallahu wa ni'mal wakilu 450 wala 1350 nendi def salaamun qawlan min rabbin rahimin as much as we can nendi jang falaxi ak naasi 11 nendi muslu yàlla nendi ñaan yàlla nendi fuglu yàlla nendi jéem a am connection with God suñ ko amee yàlla moo ñoo leeral dinañu wan ban sëriñ moo mun dinañu wan ban sëriñ moo munul gis nga nit su jubee suñ la booleeg sëriñ su dee fenkat la soo ba war koo jox saxaan dafa mu ni dafa lu la dem bañal doo ko ko jox waaye soo jubadee sëriñ yu baax yi doo leen gis sëriñu yu ngay gis man mii di wax dama ñaanlu dama sangu dama takk damaa naan damaa wirda damaa def lu nekk te bala ma def vidéo dinaa jàng fallaxi ak naa si 1111 jàng ayatul kursi 313 pour ñaan yàlla musal ma ci ki ma déglu naan ha ki mun na wax di ci ki ma déglu di ma bañ ci ki ma fexeel pour bu ma munal dara musuma def vidéo te ñaanuma yàlla ndax soo ko defee ci àdduna moomatuloo ko am na ko ko wàccee ci téléphone am dafa cher am na ko ko wàccee ci téléphone am dafa dog dog dog fi nga juum mu criticize la fi nga wax sa boppa ëllëg mu use ko against ne xool leen moo taxawoon ci internet bi ne moom njaalo na ne moom nangam na am conscious with all those li ma wax parce que duma dof wala dofaguma ñu ne dof rek moo day wax naan du ma dof kon ma ne dofaguma pour <laughs> seetal suma bopp ne du ma dof kon yooyu yëpp ñu ngi cee bàyyi xel ak yu yooyu waaye su yàlla taxee rek demal te yàlla tax yàlla moo laa dimbale saxaaba bi def na yaa rasulullahi li ñu digal nii yàlla moo la ko digal wala sa xalaat la mu ne ko suma xalaat la mu ne ko kon may ñi ñun doomi xare leen suñ bàyyi den daan tooñ balaa lislaam bi islaam ñëw ñuy xare gis nga fi ñu war a taxaw nii su yàlla ji tawee dafa tooy fas yi dañoo daan duñ mën a taxaw we bi be waaye fëlee suñ fa taxawee yàlla ji taw ba tooy suuf si dafaa dëgër dinañ mën a taxaw we bi be powerful yonantu nangu kon bañuma ku ma advice ñenn ñi dinañ ma oo waroo woon a wax lii ni nga ko waroon a waxee awma ci problème seen advice la seen xel la respect naa ko waaye xam naa li ma def te mu jëriñ doomu aadama yi te yàlla moomu laa ci xool moo tax ay pay little attention in the other details yal na yàlla ñu jàmm defal ñu jàmm yàlla sàmmal ñu boppam wa ma shahidna illa bi ma alimna wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu